يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته Serigne Abou Mbacké mi jiite délégation bi ak ak ñi nga sang ngi leen nuyu ñëpp ñëpp rek ngi nuyu di jokk bokk ñu yàlla boole dafay lu yag nga xam ñepp dañu dañoo won ci genn kër suñ bi di lepp ba ci yag ñi ñi nekk ci ay ruqruqan ñen ñi dekk di ko wër ba mujj rek euh, fu nekk rek nefa fa. sëriñ bu mom nonu mu nuro won sëriñ Tuubaa am ciol kessi kërëm gi nu lo ni kessi njaareem yi da naka ben plan rek ba ci jàkkaale woon ci bir kër gaak jëcc njaareem non la ko nuro ci ci lepp mam xarit mbar waajuru suñu Abdou Samad nak dara wax na serigne Sonia bu fi yag nak bayam lol ban noppi ba di toogandoo mom damay wax ne da koy toppandoo dañu dañu yagut yag yàggu gu tax man ko topalo kon damay japp ne nuru maam xarit mbar lool na sëriñ Sonia bu daal lupi dam dëppoo ci fànn yep maa ngi ci marché bobu wa yaa ngi rek buy lox danaka da ngay top ci am di cial ak ak ak ak ak ak ak ñu melal si kii rek xam bu doon ko xam suñu soxna ba noppi jàng lu baaxil xadim bu bisiru bi da ngay jàpp ni bu bisiru ak suñu soxna bu bokkutoon bàyyi da ngay jàpp bisiru da dafa adapté suñu soxna naaral ko bayam wala ñu adapté suñu soxna bu naatal ko sin tuba danaka lu mu wax ci mel lu rek ki ni suñ bi daal yu bari yek lal lal lali lali lal yu bopp xanjar yu guddi yi ak ñàkk nelaw gi moom la ci gën a nuru moom suñu mu doon fenn fa mu fa mu baaxoo dalloo guddi amu ko suñu soxewu déet amu ko nit du la ko daa daane féexlul nii nekk yi mbaar waaye mbaar yi du mu mbaaxoo ne moo xam dañ naa mbaar mii mooy mbaarum panaam ne maanaam ndax guddi gi li ci gën a bari da koy dox da koy da ko dana ko dox ci biir dëkk bi gaa waaye dana ko dagg ci kees yi daanaka fi mu ne kees yi la muy bari bari bari bu doon da ngaa da ngay da ngay ñun ñi xam ne léeg-léeg dañu daan nomee ñu ko ñu koy suuxatal tóokër bi nga xam ne eh, garab yu sew saan yi ci tóokër bi dañ ko daan suuxat boo xëyee foo kees goo jaar danga nga fekk mu mu mu jaataakub tànkam. garab bu ñuy suuxat gu ne dana fa nit ñi dàll bi ba xam maanaam mi ngi tooy ba léegi wala dañ ko fàttee suuxat. nga xam ne boo ko wokkee moo danaa la junju ne la kat xamal ne garab gi yëg naa ne gi suuxatuñ ko nga xam ne loolu ci lay yendu ci ci lay fanaan daanaka loolu lépp daanaka rek day tegtale nuru gum nuru suñ tubaa ñàkk gestu gi toog gi jublu penkook suñ sooy ak ci loxo yi du doon mbirum ndeysaan waaw ku set aw làmmiñ la wan te mën tënk ay wax tamit tamit tañ di ko xam maanaam li muy wax jawaamihul kalim lay doon waaw ba noppi nag di lu yomb xam ñaar du wax na wax ju law law yi bari sutura lool loo ko maanaam ni mu bëree ay tere ni ni la la maanaam suturaale boo xamee da nga koy nëbbutu waaw jikkoy sang yi ngay dégg yëpp nag yëpp loo ci dégg rek ci jikkoy sang su ci suñu sang waaw maanaam ba bañ safoo ko la soof bañ a tooñ bañ a nga xam ne faw xududullahi yi ci la lay xupp maanaam li yàlla yi tere moom ci ngay def lu noonu mu xupp la ci ba nga xam ne xupp na la wala li yàlla yi digle na nga woo koo def mu tàng ci ba nga xam ne tàng na waaye yàqal ko nii rek mam moom du ko aduti danoon maa ngi leen dénk ñett jiim di leen tere yaar julli jekki jàng digg aw ñam digg waxtaan dama leen koy tere digg aw ñam digg waxtaan dama leen koy tere ñoom daanaka mbir boo ko miinee doo xam wilaaya gi waaye suñu sooy bu la daje ci jëmum ji juróom-ñaar fukki yoo xam ne mënuñu ko ci ci ci ni koy defee par vingt-quatre heures ndax lim ndax ba daa jàngale nga xam ne boobu mooy jonjoon njàng mi am nay jamono menn mooy mooy bindal ñu am sumun ñëpp ci loxoom waaw hmm. suñu la sooy bëgg yëpp ci loxoom parce que ba sumun yi jeex nga xool loolu mu yàggee te léeg-léeg nga bind ci ñaar fukki nit hmm. kuy tari bind ci moom ngay tari nafar yi kay nga lay boolaate waaye kuy tari bind bu yees hmm. ci moom ngay tari mbeq yi moo koy diglu an bi moo koy tibaate jàkka ji moo koy jiite ta te responsabilité yi kër gi yëpp ci moom la wàccaat maanaam foo jëm yaa koy moom ngay tàggu luy lijjanti ko ci moom lay lijjanti ko ba ba nga ni si jot nga xam ne maanaam léegi onze jot ci guddi mu wër kër gépp tëj ceeb yi loolu génne ay téeréem nag fas yéene nag tàmbali li ko waral ci bëccëg gi wa suñu sooy boolem comme yar ci waxtu woowa mosoo gis ab téere ci loxoom bëccëg lépp ci nit ñi la koy delloo jàngal gone yi digloo yër xol ke mbedd may damul jëri diw diw jaar na ne nga xam ne dong yi dëkk bi li ñuy bari bari xamee nañu ci di dongaam foo jaar ndaw dab la ne lañ sëñ bi leen nga ñëw bu léeg-léeg xamal nag ni loolu du dund dundug doomu aadama kese nit ñi ñëpp ku ci ku ci yëndu woon ak ngénte ngénte loolu la ñor ngénte la taaw laa wax ba minuit da nga wëri foo nopp moom muy muy gàtt muy jànkonteeg lu toll noonu war dinaa si fii ki wér di fii boo booleeg li ko war ci gan ñi lu mu gàtt gàtt gàtt dana leen jox fanweeri minute bëccëg ak fanweeri minute ngoon bu dul événement magal bu nëgë ni siy jotee nag mu taal ay sondeelam bu ko defee kii tëdd fi wetam bu dee ko mel ni suñu bu sa wala gumba la léeg-léeg mu ne ko rukk mu jóg mu ne ko dimal yët ma ca ca barab sangam téere sangam nga xam ne ci loolu lay fanaan ak a wérd ak a tasab ba yéete njël jot mu mu laat suba démb gi ci bëccëgu tey bi maanaam lam leen dimb mu delluwaat ca bu ngeen timis delu wat ci lam len ñi xamni ko ko fa ma a fanan ci manam ci ci tiitaange ngay fanan ndax mom du nelaw la ba nga nelaw ta boobu ñu ñu mu koy def loo ay ñaar fukke dañ ñem fukke fat at ak juroom mom mom juroom benn fukke at kaw bis bu yalla sakk ci lolay ni amul fu muy tukki amul kër gu muy dalloo amul bis bu muy dugg xalwa amul weer wu naa nañ ma may bis bu yalla sakk bu la wóoree ni suñ soyo nga ci kaw suuf xamal ne lam da def ci 8 heures yi suba bu la 8 fekkee fii xamal ne ma ngi ca lam daa def 9 heures ne bu 9 heures jotee ma ngi ca lam daa def 10 heures xamal ne bu 10 heures ma bu jant bi soo mën a la waat ci yàlla ne maa kurus mbaa maa ko téere bu demee ba mel ne daa jeexu laa ilaha illallah ji muy wax moo koy delloo si nga xam ne mel daa daa daa tiit hmm. lu yëngu mu ne hmm. lu yëngu mu ne hum bu jigen ke ke jigen ñi fi tasoo mu ne xoolal kooku tey lamp bi bu wata ne piip mu mu ne kuk man xool kooku neel amul na dem seet kooku nga xam mbolam ñu yor administration ci walu bëkk néeg duñ yendal duñ faal fo leen fekk ñi nga waaxoo ko daw tamoog ñoo ma koy ànd ko sama sama jeex ba nga fanaan nga del nga bayyi wat ko ci mom lam neen ñu guddi ñëw ñu bëccëg lool nak bo bo de nit kesse da nga xamni ki daa dafa yoroon bindub doomu aadama ay dund nit mu nit loolu waaw te koo koo xam ci suñu sooy ba rek mu dala ci nitile ba bis bi mu làqoo loolu xam ci moom waaw du gën a yaan du organisé dara diineem këram ko soxla yaa koy fekk diggante ay kër si du xaaj rek kër si di woo kër yooyu yëpp gum ci masaa dem suuf si day sedd guy mu dem fa bu di waay jot mu dellu ñibbi bëgg bokk lool man koo jokk am mu lool sama baay nee na ma daana ko woo ba ci yàgg ba ñu ñëw mu ñu ko demal ca armeel ya boo demee mm, barabu siñ diw wala barabu cheikh diw boo ko laajtee barabu diw du fa sori nga laaj ko ñooñu fa ne ba ñu wan la ko nga samp fa ban te ñëw dama la fay yónni bare bay sëñ day dem fexe ba xam ban barab bi bu ñëwee bu ñu demee ba ci sé dugg yu sëñ bi taal lamp juróomi batterie and ak mom ak kenn nga xam dañuy jidlé waaye kenn ki da koy dande ki jitu day dox lo war mat fukki mètre ki ci topp yoxal ko yeneen fukki mètre suñu sooy bu féete ginnaaw yor lampe bi bu né tay ni nga xam dañuy jàdd leen nii bu né tay ni nga xam dañuy jàdd leen bu né tay ni ñu leen dañu xam dañuy jawal leen né ndana ko def bu ñëwé ci armeel yi fay tok di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan ba nga ba nga tit ci ni wa fi wax ni waré fé ñëmé mu né ah, da doon sama wëllëre lol wallahi da doon sama wëllëre lool sa bi doomu suñu tooy mutut man ko gëstu lol kum mu xam nga mom moom bu gëssé tee sa deret faw mu dox ca loola lola xamal ni yow mi li sa yow taxaw suñu wet keneen tax mën a dalalum lool noonu mu nuroo ko mën a xuppee boo gisee suñ soo bi dag naa kaa ma doon dégg du kii an ndeysaan la lay njëkk a nuyoo bu la siinee moo njool yow yaa ah? moo cuuj yow waaw maanaam dalalum lool mën a wuñ njàqare lool wallahi ñem ak njaboot lool ndax jamono gi neexutoon de waxtu ba muy ah, booba jamono gi neexut waaye lu mën a am du génn néegam la mara ne rek mm, mbaam jigaan daal fa la daan def na fa daaree tërbiya ba bi Cheikh Moussa di làq fa la ko fekk euh, wala laan ak bayti jeg foofu fépp def na fi ay ay daaree tërbiya ndànk-ndànk waaye saamu suñu bay raxuye jégi daal moom bi ci la mujj indi daaree tërbiya ji waaye booba bu xëyee takk watiir bi ànd ak bàyyi suñ kan dem di xam li dongo yi def bu jant bi sow mu ñëw ba am na fii tamit fii ci wetu daara yi ñu sàll yi ñu wax ndookaa bël bël la tudd dongay maam cër maam cërum dëru mar naan bàyyam seexaw bàlla ñoo ko dogaloon foofu ay aboo jëng ñoom ñi ma lay wax ak i alli mbay ak yooyu ne ndax dongay seen laat yi ak dongay seen sow bi léeg-léeg dañ daa duggante ànd dem ca bee tool dimbali seen i worom wala ñu ruujal ko wala ñu raadal ko ki ci donga talu taalibe yooyu yëpp ko def legi nak bi nga xamé ni bi nga xamé ni ay Baye Ibrahima Ñaan Baye Seexu Seexu Seexu Kan yewi ko nañ la fa daara yi di tek ko ci loxol Baye Mbàkke Kan yi ñu yóbbu ko mbaraan booba nag daa dajale donga yi bañ dajalo ci ben barap mu dañ ma leen a jox ñi ci des indi fi seen bopp léegi nag Mbacke Kañ mi indi booleel yar naa ko ba xam naa ne man ma wuutu ci yéen li ngeen war a ne lépp xam na ko lu ma si jaaxal moom laa koy wax fexe leen ba bu leen jiyoo ak moom bu newetee mu mu mu mu séddale leen bu dee juróom-ñetti jëwriñ bu dee ñeent bu dee juróom-benn jëwriñ ku ne xam ki nga war a àndal. li nga war a li ñu war am ci gerte num tollu ñu bokk ko bay li ñu mën a am ci dugub num tollu ñu bokk ko bay loi yi def ba nodd jot nañ ko bàyyi nodd suñu mor may mii jité lin foo kuy gondi ji door gondi gond ji ña toll ci jang xam-xam mu jangal lin xam-xam bu ngeen pe tok bu nooree gona yi mag yi buñ bëggee majjal comme ni ñu def ay ay café ki suukar terewuma ko wayu nañ ci moytu jaxasee ko ak wuté ko alal ak ak ak di jaay def ci sa bopp ay ay loo ñëwee say say xottiku xottiku nag ak ak ak ak ak dundal sunna tërbiye ak ak ak ak kafe suukar sañ ngeen ko ci waaye naka jekk itam wàllu yaan yi ak jaxasoo ki nit yeneen i nit ak góor ñi jigéen ñi di gisee naka jekk da ko daa da ko daa bañ sax jëwriñ yooyu jëwriñ jenn ak moroom ma duñ duñ dend fu ñu ne maanaam sa tool fa ngay def sam néeg sab tool fa ngay def sum néeg yaa ngi nga bokkal di bay tool bi waaw mm, fa yu am ruur da ko daa tere yu mel noonu daal ak léeg ak mu bind ab bataaxal fàttali li ñuy wut ak lintax a jóg war nañ ca mu kàllaf mu bàyyi ay bokkam xëy na di wuti lenn lenn loole war na luñ ko ne moo koy maye mu mu def ci yitte te gëm ko te defee ko nañ ko ko waxee Mm, lu ko may mu mm, ngi nax bappam war na ci mu kàllaf mu xëy sóobu aw yoon muy laaj ñu mu jàpp ni ñoo ko gën a xam pakki yoon ya ak ndog ya lu ñu ko ca wax mu gëm ko te defe ko nañ ko ko waxee daal ni ku laajut moo wàcc boppam ku laaj ko xamut mu mu wàcc la ku laaj ko xam te laa mu sanal la ku laaj ko xam te laa biir te defoo lam la laa ku perte la tawat ci bopp ne kenn wucc ko ndax laaj nga ko xam te lay biir mu wax la waagal laaj ko xam te mu lay biire la nga def lam la lay biire seen wucc santante waaw julli juróom ko daa wax ah, war na ci mu kàllaf mu fonk julli juróom te buñ ko julli dara lu ko may di ko limaale ci jullit yi tey ak ëllëg war na ci ab taalibe mooy mooy too dem ci kër jigéen ci lu benn mu dafa wuti guuxum ndox bu mu naan wala tib bu mu sàq mi xam ngeen ko ko waxut dem di xewaat rek léegandi mu ni mu ni ndaale dañ ko fay def loo yitte ju far mu def ko taal di dem lu ko may desi ko libaari ci taalibe yi tey la da leen noon bàyyi leen bu ma neen nee nangam ko def dem sawara ngeen day wax rek moomul sawara wax ngeen dëgg ndax su ma ko man kenn di ko dem mm. waaye waaye tàngam tàng na xam la ciy yóbboo te buur ba ba ko sàkk amut kër sàkk kenn lam rek lay def moo tax ma di leen dogalee ngir bañ ngeen dem ci am na ku ma ku ma ni nañ ko jéng mu ni teen ma tin am ko ko teen koo tin mu ne maa ngi koy daa jaar ci yoonu safaan ba may fexe nu mu ca ñàkk a demee di <laughs> mu ni leen ak jege ñaale maanaam bataaxal ba loolu la ci bind dan ak jege ñaale mi ngi tàmbalee ci may denc diw wala diw may denc wala ma jur wala diw ma jur mu ne ak jege wi suur lool mu ne yonent yu jëkk ya maqaama yi mi ngi tàmbalee ki mi ngi yam ci doon yon mu ne yonent yu jëkk ya amna ci ko doom dem sawara kon kon jege ñaale googu dañ amna ci ko bayam dem sawara kon boo ko jege ñaale dañ na am na ko jëkkëram dem sawara amna ci ko do soxnaam dem sawara kon bax gi rek kay da na wax ne itam ab wolof day wolof wolof waaw loolu loolu suñ suñ suñ dafa wax loolu sama baay la ko waxoon waaye dafa loolu waxe suñ tubaa la da ko ne suñ tubaa nee na wolof wolof lu wolof lu moo ko jik ndax mën na caa dem ba faru ca boobu waaw hmm. waaye bu naar naar loo bu demee ba ca lu mu ko mën mën bu demee ba ca naar yaa xam ne ñoom ñooy naar puróñ lañ koy jàppe puróñ jaamum naar waaw dibiteer yi Sénégal mune bu pel pel lo bu de ba ca pel yi deug nga xam ñoy pel gourmet lañ koy moy moy jaamu pel bu tuwab tuwab lo bu demee ba ca tuwab yaa xam ñoy deug deug tuwab mindan lañ koy def li mu don nak bu ko bu ko don don lo du manki te mën dem ba falu ci <laughs> loolu mo waxi suñu taal da ko nettali man waaw mës julli yor yor ci kess dakar gi booba nak plan kër gi nii mu mel melu nii plan bu njëkk ba la na xam ne boobu buntu kër jigéen ñee fi amu ne néewu fa ñëpp ci buntu kër bu mag bi la jaar Dakar gi nag boobu buntu bi mu ngi ubbee ci jàkka ju di fi El Hadj Diouf ba defan tan soppi ko léegi jàngukaayu xam-xam hmm. buntu bu ndaw bi foofu la nekkan ak Dakar topp ci hmm. sëñ bi nag di dafa jullit yor-yor soxna astugaaw na agsi nuyu ko daan ah moom kat day julli sëñ bi daa bàyyi julli gi ne ko waaleykum salaam man kat fay la li ma ci yaakaar ci aw yiw moo ëpp may li may séntu ci julli waaw ala layi waaw ñoom amuti wuñun nii ay nganti lii jugumaag fi ma jaar nangam ñoom ka ko ci gis kenn da ngay jàpp ne li nga doon ci suñu tuwaay ci kii la ne ngay njëkkante loola fi ne maam Astu Gaawaan dafa amoon sañ-sañ bu fi mosaan di ñëw sëñ bi day wax ni fi muy dal nañ nañ dindi li fiy nur ay montar mbaa ma yu xeet yooyu ndax damay ragal mu gis fi loo xam ne xelam dégéné ba def tëlaaju ko waaw maanaam mu gis fi loo xam ne xelamañ ci ba nag mu fàtte ko laaj ba dem ndax loolu bu boobaa dootuma njëriñ man dootuma dootuma njëriñ ci àddina waaw noonu lañ ne lañ sëñ bi xajul nii bisu alxames la fi daa ñëw sëñ bi daal di fi ñoom nag bu ñu fi daa ñëw ci lu ay yitte nga xam ne dañu fay jàpp yenoon dañ koy wax sëñ bi jégal ko waa koñ bi waaw waaye man sëñ bi li ma ci seetlu man ci at yu mujj yi nga xam ne moom laa fi ne man yaari ngan yaa ma fa seetlu daal nga xam ne seetlu naa ko bu baax te booba itam xaw na maa am na daal lu may faral di di nekk ci biir kër ga léeg-léeg boo jàngalewut booba ji jigéen ñi daal laa gisoon sëñ bi jox leen dépasse bi soxna maam jeeg ñoom ñom daal ñu togal ñom la joxon ñu togg indi waaw xam ko ku ne togg sa boli fab salimina tek ci dikk jëbal señ bi waaw bobu dara melni aljana day ubi kess yeb yëpp bu bi mom day ne day dem wuti fum ne ci ci biir kër ga ni gan gi nak di nuyu. sim la na mom musuma gis jenn doomi señ tuwa jum gane ji tokki lal yo ya ma jenn doomu Sëriñ Tuubaa ju ma masa du kër Sëriñ Saaliwu du kër Sëriñ Saaliwu séem la doomu Sëriñ Tuubaa ju masa gane ji ci suuf lay toog ba ba muy génn nag di nuyoog nit ñi bu dee génn nag ba dem ci saal ba di nuyoog nit ñi ma mën naa toog ci ba waaw Sëriñ Saaliwu danaa wax ne séem la man ñoo koy def kilifa boobu sax xamul luy kilifa yàlla yàlla dogal muy muy muy kilifa ma xam ne sama kilifa rek Sëriñ Saaliwu danaa wax ne man Sëriñ Saaliwu mooy sa moom laa moom laa mooy sama xarit waaye suñu woon suñu kilifa moom amul kaf amul li gën waaw loolu laax suñu saay bu loolu laax kilifa moom gis kaf jëm ci moom suñu saay bu nag moom mën na maa xarit moom waaw nun ñi nga wax naa dañ na joxoon suñu saay bu la rek mooy sabab ndax fi mu ne suñ euh, suñu nekk Tuubaa la itam loolu dong la du leneen siyem laat daa xam ne suñu saay bu moom mënut a génn Tuubaa du te du ko kafe mu ne ko donga yi da nga leen di indi belal ma yor leen mu jeli lu maral fam nak tole dag ko ay seigne marmay ak ay seigne lat amar ak ay bay abbasil la ñoom dongaam yu mag yoy ñi dafa bay ñu fam nu yóbbu daara yi suñ di sa belal mu jox na ay tool jox nu nak jox na matériel jox nu njël dina fajj lu ñoral na yit seigne soyew <laughs> nun ñu loolu lañ nekk won ko seigne saliw da nga japp ne sun mbay seigne suñ da ko la jox kenn mbay mbay mu nga xam ne doo kër suñu soye bu ñoo ko daa bay hmm. xam nga ñun suñu daara suñu soye suñu saliu da ko beran da ko ñuy wéy ci atteem comme ni ñuy wéy ci atteem ay doomam waaye nag loo ca masaana ñor ci loxol suñu yow la koy bay la koy la koy indi muy dugub muy gerte muy sub ba ci mbool sax ba masaan dagg mbool yit ko danaa ndaw liit ko suñu soye ñoom li leen mooy toorub lislaam bii na jag ta dox wet guñ jàpp ne buñ fa gis nga bàyyi bàyyi jibril turé mii Eh, kii nuñu koy xeeti bàyyi jiil tey ma yoroon kër si laat kër si Abdou Khadir ah xanaa bàyyi xul jong moom ko dégg ne wàccuwaay bi mu la bàyyi jiil tere yoroon kër si Abdou Khadir man bàyyi jiil tere moo wax ñaari waxuñu ñu sa waxuñu ma suñu soñé bu dafaa dem ñu dalal ko ci am néeg dégg nga ba demam jot mu ne si Abdou Khadir mi daa bi ngaal ma ko mu ne ko léegi na takk bagage am te nga bale ko bu ko fi bàyyi daal di ko ne na ñëw ma ñaanal ko bañ demee mu ne ko boo demee xamal ni dalaa bëgg a dimbali bu jàppee daa ñàkk donga wala da nga koy defal defal defal lu mu amul dalaa bëgg a dimbali rek nee na téy ko fet Cheikh Abdou Khadir di di di làqal ci ko ko liggéentul këram ba ni ko yiwee delloo ko nga xam ne bu ko téye woon faaw doo xam fu ñu mujj hmm. waaw nee na ma bay jil jili Touré wax na ma ci làmmiñam ni ma suñ seexum si Abdou Khadir ak suñ Moustapha Kere ba leen daara dafaa gane si léeg-léeg ñu ñëw ci ci néeg bi léeg-léeg ñu dem ba caag mu ne ko waaw ñaar ñii ñum mun neelal ko ko mu ne ko defal takkal ma seeni bagage su ma dem dama leen di yóbbaale nga xam ne noppi loolu wax ni si doxali ko sama coow yi su may dem dama leen di yóbbaale fu nit mës a bàyyi ko ci Sénégal ni damay ñaanlu dana ne na ñaan gi ak ak ak wata bi lay yóbbu docteur yi ñooy ànd te booy booy demit dana la jox garab yoo xam ne daanaka moo yéen lay bindal ñooy bokk da lay wax ne la boo demee bu ñu la bindalee loo xam ne néew ci garab ba adduna bi daj amul kum ko ku kuñ naa dongaama mbaa doomama mbaa ci gii kër la dëkk mbaa gaa waaw amoon nañ ñemante lool itam rawatina ku wér bi ndax man ñi ma ci xam nii nga xam dañoo ne dañ di mag ñaare man de man laa wax seetlu naa ni am na ku ku mos a wér di koo xam ni soxlawul mu wax turam ak fa mu dëkkan waaye bis bu set dana ma ne demal seeti ko te na nga ko xool ba xam tey la gën a démb ak tey te laajal ma ka ka ko lam lekk démb ak lim lekk tey lu ci ëpp bu tisbaaree mu ne ma demaatal bu ngoonee mu ne demaatal bu dee ko nekk ci kër gi moom dala naa bu lekkee ba depuis indil ma des ma xam lu toll nan la ci lekk ci lay xam ne nu wér gi toll waaw loolu moom yàlla loolu la ko yàlla bindeewoon amoon na sutura lool ndax ñim daa dimbali ñëpp di leen jox ay pepp ak yu niroo yooyu nga ko yóbbu moo xam ko yóbbu moo xam sareet moo xam na ko yono waaye ndox bëccëg ñu naan lii kër suñu la jógee ci diw jëm mosu gis mu def lay jox di ko yónnee ci nit xaalis bu dijj bi mooy féete biir nga xam bu ay ñaari ay wala ñeenti wala junni ab téeméer la koy ëmbi nga xam ne moom day mel ni boo boo koy door a gis day day tuuti fi yow xam ne boo ko lemer ci lay rii fi yow waaye du fab ay junne la fab ay ñaar téeméer ëmbi ko ko waaw mm, ñaari lu ma mas a gis mu di ko def loo nit lu yees lu mel ne suuxat loolay garab wala felli loola garab wala def loola dara maanaam yoon wu njëkk yoom da nga koy def fi kanamam mu gis waaw ci laa njëkk gisee mu ne ma garab ba may soxla ay garab daf ma def ko ma gis ma def nii ba àggal mu ne ma garab boo ko dee suuxat da nga ko naa paw ndox mi tasaaroo fu ne mu dem fa waaye boo ko jamee ca reen ba la jëm te kon bu fa yàggee reen bi feeñ te reen bi bu tàmbalee feeñ léegi garab bi léegi garab gi dee ba lay fenn loo garab loolu lay wax dana naa bu xancoo duuti jëb bi da nga koy kit nii ba ba fenn fu ne xaañu nga dagg kaw nga xam ne bu ak see ca xaañu xaañu ba rot waaye bu xancoo booba booba booba car moom dut yëbbi waaw gis naa koo xam ni daa taw bool suñ bi yër ko nii ci gis ko daa daal di génn ni ko ndax boo ko taawoo bu ca dara nekkee bu tuuroo da ngay ñàkku lay te bu daanoo day xolli ko dégg ko téye ñaari loo dégg nga ko ñoom <laughs> ñoom nag doomu suñu toit yi loolu dafa bokk ci seenu mën a tërbiya maanaam fi nga jóomee fi lañ lay wiññee maanaam luñ naa jëralu ko nii amuñu ko ndax buñ la ko waxul doo xamu ah suñ suñ jamono jii na ngay gis kon ne ah loolu man tàyyi naa ko ba ci jàngalekat alxuraan yi gis nga ni ñuy wutee ay ay ay ay kii ay pédagogie ndax day mel ne da ngay tàyyee wax ko nekk demal ñett ji wala nga ne ko àggal suuf wala nga ne ko banque sa tànk bi nga ne ko téere bi yoree ko sa yor bi fekk le fee nga ne ko tàyyee wax du ko xamu waaw ah, sawarutoon ci ñuy werd day jàpp ne li nga war a def mooy fexe ba gone gi baax yow mooy sa sama bàyyi la wax ma dégg ne ko loo dégg ñu di ko def ci lu baax ak màggal ab siyaare ab dayire loo dégg ñu di ko wax wax tamit lu baax jara def nañ ci ron li def waaye li ngay def a gën li nooy léegi nag nga bàyyi li gën lépp jëm ci lu ko yées nit du ko def waaw daa da ko ne julli ji àjjuma sax toog toog yor gone yi ko gën sew waaw daa da ko ne defal naa leen jàng ab kaamil bisu àjjuma ak salaatan tona ji naa junni yoon mooy seen faratay àjjuma yéen waaw léegi nag xam googu mooy xaqul yaqin boo gisee nag ñu baree bare baree bari mën nañuy def dara ma di ko fa romb wala ñuy organise dara bëgg ma tabbi kat du ma ca mën a tabbi wala ñuy wootee ak mbootaayu ay jàngalekat wala ay nangam mën a ca cell ñu defee ne damaa mënut a dugg ci nit fekk li ñu def ci man laa xam te ki ko def ci man gënal ma ku ne te wax ko moo dégg da ngay da ngay xool loolu mu hmm. loo dégg ñu di ko def tamit lu baax mi ngi ci ron li ngay def waaye li ngay def a gën lu ne gis nga mu suñu saxsaay nii. man ak mom ak ak kan way defe naa suñ Mamoun Diouf suñ Thierno Diouf la may la ñent lañ man de bañ bañ bëggee tarif ki isib ndax ndax bobu dañ ñëw dele ku ne fanweeri nga war koy nga war ko sa do rek dal tarif fan fanweeri isib ta tarif bi xamoo lu lay jariñ ndax yow da ko fay tek bañ la kay tari rek nga tari waye do am jotug laal ko ñu bëgg nak ñu jéggal ñu tarif bi señ bi jox lim bo xamni dañ ni ngeen ko tay ñaar fukk yoon juroom ñett yenen Yoham xam ko da ngay tàmbaliwaat say yoon waxuñu nga tàmbaliwaat maanaam boo gagee yoon yi nga weesu yëpp day neen ba ba mu ba suñu sooy bind da ko ne liggéey boobu nga nga nekk nga def ci moom amul lu ko gënal maamam barke suñu lettre ba bi bàyyi Serigne Fatou da ko yóbbaale yamal kaam mako ko maa ko da ko ne amul lu ko gënal man man sa dund mu def loolu suñu sooy boo ko wax amul lu gënal suñu tubaab fab alxuraan def ko ci doomi jullit te yàlla tax waxan na ko bind na ko leetar boo xam ni da ko ni alxuraan ku def ko kurul yàlla amul ku def ko ci nit kurul yàlla amul luñ la ci mën fay perte la bu dara tax nga ne ci kurul yàlla faajur ko xam ne lay taxalaa na soñ yonante yi may wama asal ko xam ne mina jëri ina jëri laa xam ne lay ñii di jàngale alxuraan te duñu leen fay loolu ci ñooñu ngeen bokk boo bu yàggee duutoo yemale kii fay ak ki fayut su boobaa nag ndoxum daal di ciy tàbbi booy lekk xetax ak booy lekk mbuum lépp na la ci yàlla bàyyi faa juru ko xam ne lay tax laa moom la daal tàmpee lettre mu ko bind loolu itam boo gisee ma waxee ko nii da koy xemmem loo ñi ci ne ndax ay étage daa xew dafa soog gouvernement bi xew politique xew tukki xew wut alal xew boo xisee xam na ni doomi Sëriñ Tuubaa nee na loolu lépp lii ko gën moo ko gënal Sëriñ Tuubaa yow mi ci nekk doo yokkat